gën ñoo ñu ngi toog ak suñu baay sëriñ baay Abou Dieye di kilifa si jotaa bi waaye di kilifa ci mbooloo mi bokk ci membre Hizbut Tarqiyyah bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi foofu. tey mu mel ni daayira nuuru daayira bi nga xam ni dafa féete ci këram nga xam ni li ci ëpp ci ay njabootam lañ taxawal bis bu toll nii tey di bisu xasida di si sant sëriñ bi. waaye di màggal xasida yi bu baax a baax ñu fekk ko sa jotaay bi xanaa di ko laaj rek suñu wejur bi tuttànk yi nga xam ni dëgg mënuñu lenn lu sëriñ ba ak xasida yi tey ñu amal fi bis bu mel nii di la laaj rek sa yëg-yëg bu baax a baax a baax si bis bi bisimilah. alhamdulilah rabbil alamin eh, dañuy sant tey santati dellu di santaat tey santati di sant Sëriñ Tuubaa cant goo xam ni. day am tàmbali rek waaye du am mukk fu mu yem ndax li nga junj nii léegi ñu dey li tax ñuy sant te cant gi du dakk mukk mooy njaboot gi ñu suñu sëriñ Tuubaa booleel ñuy seen jëwriñ ndax kenn magul kenn ñëpp benn bés la woon yow ma ala subi daw lu rek mooy tax nga ñëw doon jëwriñu kenn ku ne waaye buñ la defee jëwriñ toftal la njaboot goo xam ni danga am yaakaar ci ñoom wàcc ñu yaakaar gi nekk ci lañu li nga xamee ni moom rekk ñu fi indi te bàyyi ñu fi muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci lu nëbb ak lu feeñ sant rek ngay def du njàmbaar du ngóora le sëñ Abdou Khadre waxoon rek moo tàbbi ci njaboot gi ku ñu dimbali rek am ndimbal nag mënul weesu nekk ci Sëriñ jeex ci sa lépp fii lépp dañ di lépp di sëriñ Tuubaa mu dimbalee la njaboot goo xam ne bu bu ñu nekkoon mel neneen nit di nga leen jur dinga sonn ci ñoom dinga daw di leen topp fu ñu dugg nga topp leen fa waaye ndokk ba nga xamee ni ba ñu xàmmeek tey foo geestu gis leen ci te ñun dey benn yitte rek lañu am ci kaw suuf mooy ñàkk tekki laxasaay ba keroog ñu fekki Sëriñ Tuubaa ci loolu rek lañ nekk ñàkk tekki laxasaay googu yi moo tax ñu jaayante doon soldaari Sëriñ Tuubaa jeexal suñu dumb yëpp ci Hizbut Tarqiyyah fi lañ ko fas yéene jeexal te bunta ngi noonu boo xam ne day man de ba may dem ba mujj mu jaaxal ma dama xëy suba sol sama daal dem ci sëñ Saliou ni ko Mbàkke man de dama bëgg sax ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci biir Hizbut Tarqiyyah waaye law ma tontu mu am solo daf ca teg ni ak ma itam ñu ngi ci ñaax bépp jullit bépp murit ndax maanaam ñun woo murit yi sax fii mu nekk dafa waratul nekk suñu mission jullit àddina lañu ñu war a woo ndax ndimbal li mooy sëriñ bi sëriñ bay ndimbal li bu ko ñëpp xamoon waxuma la Sénégal waaye àdduna léppay ànd maase dox te ñun de bu ñu farloo te mooy suñu mission it bu ñu farloo ni ñu war a farloo dëggi dëggi farlu lislaam nag fii la baat bi tàmbalee tas ci àdduna ndax waxi sëriñ Tuubaa ji fu laafu Seydina Jibril mosa dégg rek tiim ko waxi sëriñ Tuubaa ji dana fa yegg te bu foo yeggee ñu yeggaleen ko fa nañ ko ko war a yeggalee lépp dinañ ko ci am nañ ko ci bëggee ni mu ko bëggee woon moom sëriñ bi yàlla nañu dollee dimbali saxal ñu ci liggéeyal ko ci lu nëbb ak lu feeñ jërë ngeen jëf kër gi nag daayira bi moom mu nga ca kër ga dañoo ñibbisi ci cité bi fekk fi murit yi ne fi ñu nekk feek ñoom ñuy am pas-pas rek ak bëgg bëggu dab lu neex neex sëriñ bi ñu ànd di ko dax di ko taxawal ba am ndigal ci Cheikh Sidil Mokhtar mu jox ko turu nuuru daayira ni cité man nag ab dongo laa ci biir liggéey bi lenn luy nuroo ki jëwriñ sëriñtuwaa Tuubaa seet nañu duma ko ca dongo ci biir bu ñuy joxe carte membre moom laa cay wut ànd ko ak ñoom loolu yi moom mooy sama taxawaay ci sama diggante ak ñoom maa ngi sant nag képp koo xam ne kii dëkk na ci cité ba am pas-pasu liggéeyal Serigne Touba fekk si leen ci liggéey boobee ak keneen ku foofu waay mën a nekk di ko liggéeyal yal nañu Serigne Touba boole dimbali ci barke Ahmadul Xadim jërë ngeen jëf waaw salaamaaleykum mu mm-hmm. mel ñu ngi toog ak suñu jëruñ sëñ Modou Mamoun Diop ñu fekk ko fii ci waa culturel ñi nga xam ne ñoo jiite durus bi xanaa jëruñ ñu bëggoon xam rek li mu xaside xam ne tënkoon ngeen ko ngir jàng ko fi tey ak lim bu si ne ñaata ngeen ci am ak moom bisu xaside si am solo lool waaye njàngum alxuraan waaye yéen dafa da ngeen féere ci wàllu durus xaside yi ñu bëggoon xam rek ci limu xaside yi yan ngeen ci toll ak nan ngeen séddale liggéey bi rajim euh, alhamdulilahi rabbil maa ngi xaar mbokk taal bi yëpp di leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di rafetluwaat liggéey bi bu baax a baax ndax liggéey bi moom daa doon liggéey bu Sëñ Tuubaa nangu muy bésu xasida ñu ne woon ci wàccaay yi nag boobaak léegi lu ci mel ni alxuraan ak xasida xam naa dañ koy tàmbalee ci alxuraan yi nga xam ni lu jiitu bés bi sax def nañu jot nañoo wàccee lu lu toll ci 28 kaamil waaw ba nga xamee ni ñëw nañ ci bés bi nag sànq avant ñoo julli rek tàkkusaan ñooy xool limu alxuraan bi waaye mu ngi tolloon ci ci juróom-ñetti kaamil booba ak léegi bañ xëyee ba léegi jàng nañ fi juróom-ñetti kaamil te ndongo yi pareeguñ boobu ba léegi ñu ngi jàng loolu nga xam ne moo jëm ci alxuraan ci leneen li nga xam nag moo jëm ci xasida yi daanaka moom takku na loolu ba eh, fi ñu toll nii sax lu ci bëri mënaguñ koo compter ndax calcul bi defaguñ ko amoon nañ ci lim boo xam ne vingt huit la lu ci mel ni nuuru daaree ni fii fii ñu toog boobaak léegi jàng nañ fi juróom juróom benni nuuru daaree ni lu ci mel ni maraaxi bi lim bi weesu na eh, ñaar fukk ak juróom ñett muy vingt huit lu ci mel ni wakaane yi lim bi moom daa takku ba nga xam ne instant bi calcul bi buñ ko bëggoon def fii xam naa dina xaw a jël temps waaw lu ci mel ni bisiri bi am nañ ci lu mel ni soixante six waaw lu mel ni tuxfatu beeg yooyu am na lim yoo xam ne sax soxna yi ñoo ko yor jëlaguñ ko lu ci mel ni sindi deeg yoo xaw naa foo ko loolu nga xam ni fii ak bés bi di jeex rek luñ ci kàmbar rek dinañ ko jàllale pour mbokk taal bi yëpp xam ko waaw nga xam ni lii lii lii daal lañ lii daal lañ ci woote woon muy jàngum xasida sant Serigne Touba santale yàlla Serigne Touba waaw jaarale ko ci xasida yi nga xam ni mooy mbóot mi gën a gaaw waaw nga xam ni liggéey boo xam ne danga koy def bokk ak Serigne moom euh, tawféex rek la ndax xasida yi moom sëñ Tuubaa moo moo moo ni sama yàpp yaram bi lay bi lay dindi di leen ko jox kon nag euh, santaate nañ ci bu baax lool lool lool di ànd ak waa daayira Nuur daayira ci bésu xasida bii waaw santaat nañ ci bu baax a baax a baax di ci ñaan xéewal yëpp suñ borom yokk ko yokk fan wi yokk mën gi yokk pas-pas bi waaw def ñu ñuy doon ay soldaari Sëriñ Tuubaa di ko liggéeyal fii ak fañ jëm waaw wasalaam waaw mi ngi mel ni tamit ñu ngi fi si soxna yi si soxna Amy Ndiaye bi nga xam ne mooy jëriñ mi nga xam ne moom lañ jiital si culturel bi xanaa ñu bëggoon xam rek bañ tàmbaleeg léegi li mu xaside yi nga xam ne jàng nañ ko fi ndax bu ne bisu xasida durus gi da si am solo lool kon ñu bëggoon xam rek li mu xasida yi bañ tàmbaleeg léegi xaside bu ne ñaata ñaata lim ngeen ci am bismillahi min shaitan rajim bismillahi rahman rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa damiran kulax daayin turir na ñu ngi nuyu mbokku taalibe yëpp di leen ziar subaak léegi def nañ si 2272 astaghfirullah 8000 salaatu ala nabi def nañ itam sabxun taqi def nañ ci 6 moy bu naafi itam def nañ ci 6 waqaana qana layna def nañ ci ñaar rabbi karimun def nañ ci 14 fukk ak ñeent jawartu def nañ si ñaar fukk ak benn muy 21 tuxfatu ñu def si 94 sindi ñu def si 234 depuis ci subaak léegi yooyu lim lañ fi jot def def te ñu ngi koy fas yéene yeggali ba fi ba jotaay di jeex daal. mu ni bis bi tamit da ngeen cee ànd ak euh, jokkoo bi nga xam ni moom moo féete si si si gox bi ànd si ak yeneen mbokk taalibe yi ak taxawaay bi ak yéen yëg-yëg daal nga xam ni am ngeen ko bu baax a baax si bis bi. waa ñi ngi ñi ngi sant bu baax mbokk taalibe yeeg dëkkandoo yi wax dëgg fa yàlla wuyu si nañ ci wuyu bi leen sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal ku tedd gi rek incha allah lañ leen di bàyyeel waaw. waaw ngi wéyjur bu jigéen ñu fekk ko fii tey si bésu xasida bi muy suñu kilifa di kilifa ñenn ñi nga xam ñu ngi ci daara ji te ñu fekk ko si bis bi nga xam ni tout tànk yi toll nii di seeni doom taxawal ko di si sant Serigne Touba waaye di si jaamu suñu borom ñu fekk leen ci ban yëg-yëg nga am ci xale yi mel nii xam ne waroon nañ nekkoon ci leneen suñu borom xettal leen si jaamu yàlla suñu borom xettal leen si liggéeyal Serigne Touba ñu fekk leen ci yan kàddu ndénkaane ngay sant nga leen bismillaahi rahmaani rahiim ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bismillaahi rahmaani rahiim waaw wax dëgg yàlla ah, lii moom rafetlu nañ ko trop trop trop bu baax ndax vraiment ay xale bu ñu tollee si fo te yàlla jubluwu leen ci fo jublu leen ci ci ñu de ñuy fo ñuy gës gës gës ku seen diine dégg nga di ci def lu rafet ñun dañ siy kontaan trop ndax ñun parents yi léegi nee sax léegi ñun yaratuñu suñuy doom yi ñoom ñoo yar seen bopp parce que ku ci judd ku nekk rek yaa ngi jëm ci islam yaa ngi ne yaa ngi dem daayira yaa ngi jàngi arxuwaan yaa ngi dem ay daayira ak yëpp dégg nga donc loolu sant yàlla lañ ci lañ ciy def dégg nga mënoon nañoo judd tey ñu nekk ci leneen dem di fawi di def lu leen neex te kon duñ si mën dara waaye tey lii la leen yàlla xiir dañ leen ciy gën a encouragé yàlla yàlla gën leen jàppale ci yoon bi ñu jublu yàlla yàlla wan jàppale leen ci yoon bi ñu jublu ñu bañ cee wàññeeku ba mukk mukk ba faaw ba fépp fuñ ci bëgg yàlla àggale mbirum Serigne Touba moom du du du doyut loo ci def lu ne doyut loo ci wax lu ne tamit doyut dégg nga waaye fépp foo xamante ne ni rek bëgg nañ fa àgg rek yal na leen ci yàlla àggale dégg nga wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci seen taxawaay seen jëf seen ñëpp kontaan nañ ci ñoom wax dëgg yàlla tiitatuñu de ñun parents yi léegi tiitatuñu jaaxleetuñu ndax xam nañ ñoom yoon bi ñu jublu yoon bu baax la bu islaame bu diine ànd dégg baax ànd wax dëgg yàlla kon loolu ñun tiitatuñu léegi dara si na si doom yi wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla di leen ñaanal rek yàlla yàggal seen taxawaay gën leen a dëgëral seen ànd bi seytaane bañ cee dox dara bañ bañ leen a fëkk dara bañ leen a fëkk fuñ bëgg àgg rek yàlla àggale leen ko si jàmm ak waa kay jërëjëf